dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gi di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa Abdoul mbay mi nga xam ne ay jamono moo nekkoon premier ministre bu Sénégal waaye nag daal dinay wax lu bare bari ci émission Grand Oral bi nga xam ne moom lañ ko dalaloon ci réew mi FM moom Abdoul Mbaye daal nay wax ci lu jëm ci rapportu Cour des comptes yi nga xam ne moom jàpp na ne njublaŋ ya daal nay bari li mu xalaat sax jàpp na ne Macky Sall ci boppam dafay làq ñi nga xamante ni daal ñoo def googale ngiraawaali rawatina nag Cheikh Omar Anne moom Abdoul Mbaye wax ànd bi nga xamante ni lëngoo woon na ko ak Macky Sall wax na tamit ci étudiants yi nga xam ne ñoo nekk ca ak kàddu yu njiitu réew di président Macky Sall yëkkati Abdoul Mbaye daal di wax ne Macky Sall li mu wax ne Sénégal amul ay jumtukaay ngir andi man Abdoul Mbaye gëmuma loolu ndax am na ay yeneen réew yoo xam ne jëli nañ seeni dooma yéen kaay gi ba tey moom Abdoul Mbaye daal di wax ci lu jëm ci njëgu courant gi nga xam ne daal dinay yokk a xaalis bi nga xam ne la ñuy pasar pasaree yéen kaay gi Sall ci kàddu yi nga xam ne daan na ko yëkkati moom sax dafa jàpp ne Macky Sall toj-toj la def giraawaali la def ci nag kàddu yi nga xam ne daal daan na ko yëkkati wax ne du ñu jëli étudiants yi nekk ca diwaanu Chine yéen kaay gii de la turbine mu ñuy xamal naan ñu Macky Sall jamono ji nag ma ngi ji guddi gu bët séddagu la ndax nag parte bii nga xamante ni mooy APR ak Benno Bokk Yaakaar frustration ba jamono ji ma ngay jéggi dayo lay raam si ñëg ba la jëm te bu fa kër du baax njaw ma nga fay wéy di dew su xam na journal bi ne nag ñëgg-ñëggi xol yi daan na fay loola yéen kaay gii di Vox Populi daa dina xëy ci copiol gi nga xam ne nee na copiol jamono ji nag daa dinay dee ndax lu ëpp junni ak ñetti téeméer ci ay père de famille yoo xamante ni nag ñoo ngi leen di dànkaafu ne dañu leen di dàq ci foofu nga xamante ni nag moom mooy copiol journal bii la laas mu ñu xamal ñu copiol kay bu ñu waxantee dëgg maanaam si fay dëgg nag la copiol jëm la ko waral nag mooy campagne njënd meek njaayum gerte gi nga xam ne maanaam dara baaxu ci beneen bi tamit concurrence déloyale bi nga xam ne moo am ci njënd ak njaayum gerte maanaam kujje goo xamante ni maanaam teguñu ko ci yoon beneen bi bor yi nga xamante ni nguurug Sénégal ameel na leen ko journal bi nag moo tax mu ne koppeewal jamono ji nag daat nay nërmeelu journal bi di Vox Populi mu ñu xamal nañu en tout cas daal am na ay père de famille yoo xamante ni ñoo ngi si njàqare ak tiis ndax lu toll si junne ak ñetti téeméer yoo xam ne soo moytuwulee danañu leen daal di dàq yéen kaay gii di ko Quotidien ñu fekk fan ak ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci lu jëm ci mbirum jënd ak njaayum gerte gi ñoom nag ñoo ngi yuuxu di wax ne maanaam jamono ji nag dara baaxugul état bu Sénégal nag ñoom dañoo jël dogal daal ngir nag dakkal li nga xam ne moo soxal wàllum exportation gerte gi waaye nag acteurs yi ñoom jàpp nañu daal dafa bàyyi nag ba jaan dem mu topp sa wate sori dóor ñenn ñi nag tuddee ko médecin après la mort journal bi di Sud Quotidien nee na moo xam Jurbel la moo xam Kaolack la moo xam Sigicoor la ñi nga xam ne ñooy baykat yi di yëngatu ci wàllum njënd meeg njaay mi ñoom daal nee ñu nag jamono ji daal jaaxle dëgg daal moo leen daal dal journal gisuñu ko woon mu réer leen mër ñu ko doon seet daat nañ koy jàppee nag si jumaa ji nga xam ne moo nekk ca Touba te daayira Muxaddamatul Xidma daal di def lu ni mel waaye nag soxna suusu daal bi ñu ko jàppee daal di koy laaj la mu xamle neen nag du ñëwaat dakaar benn yoon ci oustaz Omar Sall ndax nag ay jafeñ-jafeñ yoo xamante ni ma ngi koy daal di dund moom soxna si ne yóbbu leen ma nag fa nga xam ne fa laa fekk baax di kër ma jabe la journal bi du l'Observateur mu daan ñuy xëy nag dikkal ñu nag ci ñi nga xam ne ñoo yor réew mi autorité sénégalaise yi lan moo leen dal ak nag lan moo tax daal maanaam du ñu wax dëgg ñenn si ñooma ndax li nga xam ne mooy train express régional fii ñaata kilifa ñoo fi nekkoon wax ne ci weeru avril bi maanaam dina daal di ki nga xam ne nag mooy Philippe Lalliot mi ambassadeur bu France ci Sénégal daat na koy weddi ni ki démb daat nay wax ne train express régional bi ku leen wax weeru avril lay daw commencé di liggéey ma ngi leen nax loolee amul yéen a kaay la turbine mu ñu xamal lan ñu membre gouvernement bi daal lan moo tax ay kàcc ci weeru décembre express régional bi di commencé France daal na kilifa yu bari wax ne weeru avril bi train express régional bi dina daal di commencé te ba léegi nii nag dara amu ci maanaam ci gàttal kilifa yi ñoom seen bopp sax xamuñu train express régional bi kañ lay commencé mbir mi yëpp nag dafa mel ni ci France daal ci la daal di aju yéen a kaay gii di la sañu fekk fa Cheikh Bamba Dièye moom nag daad nay wax ne 2003 léegi lu toll si ñeenti téeméer ak juróom fukk get ndar yee daat nañuy faatu ci wax yi te nag ñëpp di leen di seetaana yéen a kaay gii di enquête daal di xëy dikk yi nga xamante ni daal daal ñenn si ñoom daal yëfu saytaane dëgg nag la ñuy daal di def ndax njàngale moo xamante ni dafa ànd ak fitna njàngale moo xam ne dafa ànd ak ay xale bu génn àdduna waaye njàngale moo xam ne dafa ànd ak tëddee ay xale mu nekk loo xam ne lu doy waar lu ñu war a lijjanti ci réew mi yéen a kaay gi di réew mi quotidien mu ñu xamal lan ñu bi nga xam ne daat nañ koy jàpp sa wakaama daat nay firndee lépp daal di tëddee xale yu baree bari te moom na xale yi xoolul góor xamul jigéen ñëpp la la doon tëddee journal mu ñu xamal ji ab information sudise judiciaire la si nag bëgg daal di ubbi enquête yéen a kaay ne oustaz bi ñu jàpp sa wakaam ba mu commencé di tëddee xale yi di siim ñoom seen mari ngaañ yi boobaak léegi ëpp na ñaar fukki at yéen a kaay gi mu ñu xamal naan ñu waa jamra nag ñoom li ñuy sàkku daal maanaam ñu teg ko ay daan yu métte métti stade yéen a kaay mu ñu xamal naan ñu Alfred Gomis li ko dal nag daat nay métte métti ndax moom mi nga xam ne mooy góolu Dijon bi dafa daal di kon diggante Sénégal ak Guinée ak Sénégal Congo moom nag du ko daal di mën a fekke stade yéen kaay mu ñu xamal naan ñu Alioune Sèye ak ñàkk jariñu ñoom ñaar ni ki démb ñoo waroon a bëri nag waaye nag mbir ma daal dafa mujj nag daal di pëccëxoo ay jamantey béjjën daal di fay am ba nag Alioune Seye am gaañu-gaañu yu métte métti su làmb mu ñu xamal lan ñu combat ñàq jariñu ak Aliou Seye daal ci deret ju bare juy wal sala daal di mujjee